asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS bi ñi ngi amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci la TMS bi di télé bi nga xam ni moo feeñee lépp lu nëbbu làmboog njëriñ euh, di ñëw ak yéen nag seen émission Jumaa barak ñu fas yéene ko amee la fii ci Parcelles Assainies ci unité 10 euh, mosquée bii nag mooy moske unité 10 xanaa dañuy ziar. di ko jox waatuwaayam kii di alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy le phénomène de l'univers le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di la maréchal di l'empereur di le bourreau des dëmm di le xalif des xalif di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram kenn du alaaji Thierno Moule Sow di ko bàyyee ak yàlla suñu borom yàlla rek moo ko mën a fay di ziar madame Sow laaxeen di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal prince Moulé gudd fan ak wér yaram di ko ñaanal mu dem ba sut ay waajuram di ziar ci ajuma bi suñu yaay soxna ajaratu Mariama Kamara di ko ñaanal gudd fan di ziar euh, soxna ummi euh, di suñu goro ak euh, Sophie Dia di suñu goro di leen ñaanal gudd fan ak wér yaram di amati mbégte di ànd ak yéen ak seen émission Juma Moubarak di ànd ak le grand man di Sadibou ñi ngi fii nag ci unité 10 kon Sadibou dañu dugg ci biir rek daal di tàmbali liggéey bi. waaw góor gi ñu ngi lay ziar. ñu delloo ziar ñu delloo ziar. ñu nga présenté wu rek. waaw man de <laughs> maa ngi dëkk fii Ndakaaru laa dëkk fi laa juddoo fi laa yoroo génn ma Ndakaaru. nga dëkk. ma julli tey di ajuma nga ñëw di julli si fii loolu nan la lay def. ah yàgg naa ci dama ko tàmm moo tax. si fekk sama ban yëg nga ban yëg-yëg nga am ban yëg ne jullit laa rek. yëg ne jullit laa dama julli fekk sama papa di ko def sama papa papaam di ko daan def samay maam di ko def ma judd ci loolu di ko def. alors question d' gis nañ jëmb président mu recevoir imam yi ñu doon wax ci affaire góor jigéen est ce que euh, li président wax démb dal na xel. waaw ah, président mënul wax lu dul loolu fii ak maa ngi fi loolu du fi am <laughs> sañ na ko wax du dëgg mais nag ñun suñu bopp ñooy xam li ñuy def lan la. yaa ngi dégg la góor jigéen du dagan ba àdd ba ba yomal xiyaam mi ngi mel ne nga ne damay din fi alxuraan def ci leneen góor du góor du at du en tant que président nag loolu war loolu na wax fii ak maa ngi loolu du fi am loolu ci bëgg ma wax. léegi président yéen jullit yi lan moo war a nekk seen taxawaay. non non man lu ma du ma ci xeex du ma ci nag man d' accord ci te d' accord ma ci ëllëg affaire góor jigéen du ma ko du ma ko du ma ko du ma si d' accord mukk ci àddina waaw loolu laa bëgg xam. ñu ngi lay ziar. Ah, fii laa ëppee sëriñ bi. bàyyi la nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa salaam ala mabuus alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa barakaatu. man Bari laa tudd. alors ci jullit nga jàpp ba set ñëw di julli si ban yëg-yëg. Ah, loolu dafa war a ju dafa war a jullit dafa war nga sangu ba set nga sol lu set nga ñëw julli aljuma bi nga na nga delloo yàlla euh, bis bi tey waaw. Euh, gis nañ président démb recevoir imam yi euh, doon wax ci affaire góor jigéen loolu yow jullit lan moo ci sa xalaat. ah li mooy sama xalaat maanaam mooy jullit yi yëpp dañoo war a ànd bennoo ñu xeex loolu loolu bañ am si dëkk bi parce que fii réew jullit la. quatre-vingt-quinze pour cent yi yëpp ay jullit lañ loolu ñu ñëpp dañoo war a bennoo ñu ànd war ñu xeex loolu maanaam loolu baña am si dëkk bi. nan ngeen koy xeexee. kanaa ah, si ànd rek ànd moom yenent bi nee na ànd loolu mooy eh, eh, doole jullit ànd ñu ñëpp bu ñu ànd maanaam ñu nekk benn maanaam loolu du fi am waaye fekkente ne ñu ànduñu loolu loolu loolu du loolu loolu dina fi am maanaam bu ñu àndul ñun jullit yi waaw bu ñu àndee nag. ñu nekk benn ku nekk loolu nakar loolu maanaam sa xol bi loolu du fi am. waaw waaw fii laa ëpp incha sukkuraan. ñu ngi lay ziar. waaw yal na yàlla euh, vraiment taxaw ak yow di la laaj euh, tur beeg sant bi. Mouhamed Diallo. Mouhamed Diallo alors ci julli tey ajuma nga jàpp ba set ñëw di julli si ban yëg-yëg. yëg-yëg lii yàlla moo ko digle moo tax. incha allah yàlla moo digle julli juma moo tax. Mhm. beneen bi question d' actualité gis nañu président démb recevoir imam yi fële ci palais euh, ñu doon wax waxu góor jigéen mu xamal que ni euh, imam yi que ni loolu du fi mës a am jullit yi lan moo war a nekk seen taxawaay ci loolu. xeex góor jigéen yi incha allah xeex góor jigéen yi moom moom mooy nekk seen taxawaay incha allah. jërëjëf ñu ngi lay ziar. Salika. yaa am jàmm. maa ngi ci jàmm rek ak salaam. bàyyi la nga présenté wu. waaw di Omar koy wax. douze. tey ajuma nga sol yu jekk macha allah jàpp ba set ñëw di julli si juma jox yàlla suñu borom li mu moom tey ban yëg-yëg nga am. waaw kontaan rek ndax saydul ayaam yowmul jumaat kooku sayduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko wax seen sang moo yowmul ajjuma bu jotee kuy ku ne ci war a xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax rek loola la ndax wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa loolu yàlla moo ko ko seedeel lu mu wax rek mooy dëgg. beneen question bi gis nañ jëmb président ca pale ba mu recevoir imam yi ñu doon wax wàllum góor jigéen euh, dégg ngeen lim ci wax nee na ba tant que mi ngi fi nekk loolu kenn du ko mës a daganal euh, yéen jullit yi loolu lan moo war a nekk seen taxawaay pour xeex loolu. waaw loolu daal moom jullit yëpp dañoo war a ànd xeex ko rek ndax dañ wax ne boo gisee loo xam ne neexul la ci diina premièrement da danga ko war a xeex ci wax wane ne neexul la ci doole kon doole boo amee kàttan bi danga ko fi war a jëlee daq ko mu dem su fekkee amuloo lool nga wax ne baaxul su fekkee amuloo lool mu naqari la ci sa xol defe jullit bu ne loolu moom neexul la soo ci amoon pexe kenn dootu ko fi wax parce que neexul yàlla te bu njëkk yàlla moom la daan allégué ña ko daan def kon ñun Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla ruslu ba ñu ko fay wax ay at yoo xam ne mu nekk ci biir dëkk bi daar a xewut ci suñ kaw ku am lu baax nag da ngay xam ne li nga am baax na soo amee lu baax te xamuloo ko ñàkk ko sax moo ko gën waaw waaw jërëjëf kontaan nañ ñu ngi lay ziar. dana ziar si nangu. Hmm, ñu bàyyi la nga présenté wu. man maay El Hadj Ndiaye mais ma gën a xam turu Bamba Ndiaye dëkk Casamance. Hmm. ana ñëpp a nga fa. nga solu jàpp ba set ñëw di julli si juma ban yëg-yëg nga am tey. kontaan xam nga jullit ajuma mu dee kontaan te c'est normal aussi ñu ma kontaan question d'actualité gis nañ démb président recevoir imam yi ca palais ba ne wàllum góor jigéen moom tant que mi ngi fi du am lan moo war a nekk seen taxawaay yéen jullit yi. ah góor jigéen warul nekk Sénégal képp ko wax laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah góor jigéen waru ko nangu parce que baaxul yàlla yàlla bëgg ko yonente bëgg ko kon ku bëggul ñun war nañu waruñu ko bëgg normalement ci man sama gis-gis. léegi lan moo war a nekk seen taxawaay pour xeex loolu. xeex ko tous les moyens légaux xeex ko làmmeñ xeex ko Eh, foo ko gisee nga dénoncé ko vraiment man loolu mooy sama taxawaay te dinaa ko def incha allahu rabbi waaw. kontaan nañ bu kontaan na kontaan.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 ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله kon nag suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi amoon nañ mbégte ñëwal leen fii ci unité 10 ngeen dégg témoignage yi nga xam ni euh, ñi fi ñëw julli si wax nañ ko euh, ci ban yëg-yëg la am ci jullit bu ñëw ci àjjuma bi ñëw di julli si mais également wax seen xalaat euh, ci wàllum ngóor jigéen mi nga xam ni gis ngeen président de la république Macky Sall recevoir imam yi am waxtaan bu mu waxtaan ak ñoom moom nag président nee na tànk mi ngi fi loolu kenn du ko fi mës a daganal ñoom it jullit yi aussi taxawaay boobu la ñu am. te xam ngeen ni góor jigéen loolu suñu borom moo ko nanguwul diine nanguwu ko kon eh, amoon nañ mbégte ñëwal leen fii ci unité 10 eh, balaa ñoo daaneel rek xanaa di ziaraat di ko jox wàccuwaayam kii di alaaji Thierno Moule Sow di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko bàyyee ak yàlla suñu borom yàlla yokk xéewal yi eh, kenn du alaaji Thierno Moule Sow kuy sëriñ ci kaw suuf di def wàllu médecine traditionnelle alaaji Thierno Moule Sow moo nekk ci sa kaw li ko yàlla may suñu su ko suñu borom may ci ko suuf ci wàllu médecine traditionnelle moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf kon nag euh, mbele mbele coow la rek amoon nañ mbégte sur la TMS bi ma doon ci ànd nag le grand man di Sadibou di borom parcelle euh, mu nekkoon seen émission Juma Mubarak tey ak 28 janvier atum 2022 amoon nañ mbégte euh, ñëw fii defal leen émission Juma Mubarak leen jox waxtaan ci yeneen i émission Juma Mubarak jërë ngeen jëf